rawatina nii ko sëriñ Moustapha mi mujjee jël kàddu gi wax léegi mhm. ci soñña yi am solo yooyu ci xaside yi mhm. ak worma ji ci barab yi mhm. mu doon lu mat a bàyyi xel loo xam ne nit ku nekk day mel na day am lu la tax a jariñu la lay tax a jariñu nag mooy bu fekkee ne danu laa woo bul am pas-pasub rek bu ma àggee damay def damay fexe ña ma fa fekk rek wala ña gis ma def nañ def. Ah, kenn ku nekk bu ñu la woowee da ngaa war am pas-pasu. Mm-hmm. ka woote. Mm-hmm. boo wuyjee yow boo àggee ca lañ la woo. Mm-hmm. ku nekk ca loola. nekkal ca loola ku nekkul ca loola yow nekkal ca loola. dëgg la soo boobaa faawu danga nga jëriñ. waaw ci ndax bu saa bu ñu wootee moom. ñëpp ay wuy si. mbaa ñu nekk mën nañoo wuy si. waaye nag daa am luy tax a jëriñ ca woote ba. ñoo ko sëñ Moustapha waxee léegi rek. wooteeb Cheikh Mountakha bii. nanu xam ne. du dara lu dul jëriñ taalibe yi mhm. jëriñ jullit yi waaye jëriñ àddina sépp mhm. kon dañ koy delloo ci alquran rek mhm. yaa ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxyikum nu xam ne noonu yi ko sëriñ bay jaxate waxe noonu ni rek la demee lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ni ab sëriñ du bëgg nit ba fab njariñ jox ko te toppul ndigalam kem loo defal nag sab sëriñ am lu na toll ci njariñ mm-hmm. loo defalul nag sab sëriñ boo ko bëggee it doo ko am mm-hmm. ab teretak ñàkkul dara waaye ku saytuwul dara du am ca njaayam ma dara lii ma ta xam lii ma ta gëm mm-hmm. kon loolu yi tënk na lépp kon nañ xam ne ndigalal Cheikh Muntaxa lii nañ ci gar sunu bakkan te defe ko nam ko bëgge fexe ba seral ci ab xolam te xam ne bu nu ko defee xolub Sëriñ Tuubaa dana ci sedd xolub yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam dana ci sedd danañ ci amee ngërëmal sunu borom kon loolu rek mooy mbir mi mhm. bu ko defee noonu nga ko waxee itam ci yar bi ak teggin bi loolu yi moom dadul doy mhm. yar ab yar akub teggin dadul doy mhm. lu ci waaye am rek ndax maam Cheikh Rafal ba amee ko xalaaj ne ko damaa bëgg ngërëmal yàlla dana ko da ngay fexe amuk taalibe ba mu nee ko bu ma demee ba amuk taalibe nu may def mu ne ko saaboo boo yëgee ne am nga taalibe ñàkk nga taalibe kon loolu moom du doy kon luñ ci soññé rek kon noo ngi ci soññaat suñu bop di ci soññaat mbokki talibé yépp fexe ba ni ko serigne mustapha waxe barab bi nga xamné fi la serigne bi woté day barab bo xamné bokku na ci barab yi gëna reuy ci kaw suuf bokku na ci garab barab bi gënal suñu borom ci kaw suuf ni ko serigne bi ñaane waj'alhu ya rabbi ahabba maskani fi ardina laka walil maaxi sani te war ma day day lo xamne dafa ñor serigne bi lool waye ñor doon lo xamne dafa ñor suñu borom subhanahu wa taala وي وخش القران ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي واي دا نغي غيس سيرن بي بو ديمي تي نور داري دا نغي ديغ مو فاي نان سون بروم سبحانه وتعالى نانكو هب لي تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقول العظيم كون دا نغي خامني ورما لو نيور لو نيور سيرن بي لا كون ورما جوجي نان كاي باي خيل برب بي ak yi ci ginnaaw bis bi yépp a ci yam mm-hmm. mm-hmm. doonul barab boo xam ne barab bu ñuy daje di fola ah. doonul ba doonul barabu waxtaan mm-hmm. doonul barabu ree doonul bu def dara ludul lu mel nii nga xam ne lii rek moo yell ci ci barab bi lu jëm ci sunu wàll nag ci ni nga ko waxee si euh, Cheikh Hamsatou Mbacké moom mooy li ma wax léegi rek jugut mukk di soññ ci bis bi ndax bis bi keroog ba mu jotee ndigal li dafa xam le ne bu kenn amati jenn yitte jurut bis bi uh-huh. ba mboolem taaliba yi nga xam ne ñi ngi ñi ngi dund jëmmam jooj yi mm-hmm. tey dund ju jëmmi Cheikh mun Muntaxa mm-hmm. tey dund jëmmi sëriñ bi mm-hmm. day mel na ñoom ñëpp kenn ku nekk pare nga ngir mbooleem loo am def ko ci bis bi ba jeexal takk ci sa alal ak ci sa doole ak lépp loo xam ne mën nga koo def ci bis bi ngir daje ceeg mbégtam sëriñ bi lool yi nag euh, taaliba yëpp loolee loolee rekk moo leen war ndax lii dafa doon liggéey boo xam ne liggéey bu rëy rëy rëy la ñi ko mhm. Cheikh waxe léegi mhm. doon pas-pas boo xam ne li ci Cheikh Mountakha fas mhm. moom rekk moo ko xam waaye lim na ci jot a xamal daa doy sëkk sëkk sëkk ci jamono bii nga xam ne ci la ko wootee te mu tolloog jamono ja nga xam ne ci la sëriñ bi nekkoon ci waajtaay ngir dikk ci dëkk bi day mel ne kon nu am pas-pasub gungee ko njaareem ba Touba ak pas-pasub gàttandu ko day mel ne bu doon ci lu nuy mën a misaal mhm. mu doon jëmm juy dox mhm. wala jëmm ju fi nekk mhm. nuy ànd ak moom njaareem ngir ñëw Touba wala ngir nekk Touba mu jóge njaareem ñu di ko gàttandu day mel ne am na ca taxawaay boo xam ne moom lañ ci war a taxawee dëgg la nun nag nun taalibe yi ci suñuy pas-pas sëriñ bi moom war nu koo jàppe mukk mukk mukk ku fi jóg ndigalal Cheikh Muntaxa lii buñ ko warale mukk ak ndigalal Serigne Touba ndax ndigalal Cheikh maam Cheikh Mamadou Muntaxa lii mooy ndigalal Serigne Touba dëgg la kon nag noo ngi soññewaat suñu bopp mm-hmm. tey soññewaat mbokki taalibe yépp mm-hmm. ci yar bi ak teggin yi mm-hmm. ak teel gee ñëw ak buñ ñëwee itam la nga xam ne ca lañ ñu woo nu wuy si ca loola d'accord te mooy fexe ba ñëw ci barab yi nu woo waaw ànd kook wàccaay yam yellool lan nu wooye ñu nekk ca loola mooy képp koo xam ne xas ngaa toog nga yor sa téere jàng ba waxtu ba nga xam ne cala la sëriñ bi jàpp yeewee su ko defee mu ñaanal nu nun ñëpp ñu ñu maase yeewi ko woote moom day mel ne mm. loolu yi rek la te day mel ne itam mm. moom wootee jàll yi loolu ah. xalbi wa xaalabi bi madil